<laughs> mbaay waaw kay mbaay <laughs> soxna Mbodia Mbaye de ñëwaat na soxna Mbodia Mbaye loo andi ah lu ma andi leen waaw coowul parfum lii ci digg dëkk bii ñu noon am jaay jëlal jóob jëlal wadd jëlal jaxum ba <laughs> waaw kon góor a manqué nii ba jigéen ñi jël lii di ko utiliser di ko jam nii muy dugg metti nag soo waxtaanee waxtaanu góor ni kii dafa caga dafa bëgg góor waaye yéen jigéen bu bëggul góor lan lay bëgg ba pare ma laaj leen yéen parfois na mu dëgëre parfois na mu woowee koŋ yii ngeen jël ko di bu di di dugal seen si ah waa góor tool na fii <laughs> kon koy koy waxati waxu càgga ba leen ko wax dara <laughs> kon boo jëmbaay yow mi waxoo ko saay saay waxal góor kat manqué na kat waa man dinaa gis yàpp ak sidit bu ànd ak <laughs> yàpp ak sirit ànd ak suux nooy nepp yàlla barkee la ma ko li ma jëlal mi ngi nii dafa sax ci góor te yow la yaa ko war a mën a jariñoo jëlal dëbb kur gi ci gënn gi ba mu neex man la déedéet léegi dañuy bàyyi góor parce que carrément ñun sëy moom du projet góor moom du projet nañ ko degee nee ah restez chez vous ne jigéen ñi calme-toi góor ñi calme-toi ñu xool i <laughs> ñun yow mën a dem saa góor ñun ñi dañoo mën a dem saa góor góor na fi yàpp suux bu dëgër këj nga ci yëg sa bopp di ajaka aj di xulli koo ko tàcc ngeen bokk fi jëli parfum di ko di ko mottali ko léegi romb ngeen ay machine ay parfum ngeen dama ne woon loolu du ma ci débat mais mënul ñàkk ah ay leen seen xel ngeen di fooye góor dafa neex <laughs> góor rek a neex kay lan góor wàcc ko fii jox ñu ko ñun jigéen ñi ñun ñi ñu xoolal na kuur gi dëbb ci gënn gi ànd ak suux nooy nepp di la jox plaisir muy neex nga koy jam muy baax <laughs> ngeen di passé jël ko paqueté sànni fole ba nga way duloo góor kon kay bu leen jël dara di ko utiliser kon yéen jël leen góor rek paqueté sànni ngeen xool góor li muy def ci jigéen yow ngay jànq ba am 40 ans say si di jeex ngay ngeer di feebar di wopp fu nga tëdd fa nga dem ñu ne la dangaa sayagut pour nga am yaram il faut nga sëy yow nga say bataas toog benn temps lu ma dix ans sa yow di wër di feebar sa naq di métti say tànk di jaxasoo say bët di fulu say nopp di tax ñu ne la góor ay mën a régler situation bi dama jël yàpp ak suux dëbb ko ci gënd gi ba mu mokk muy neex nga yëg bànneex di daanu di yuuxu ah <laughs> neex na kay <laughs> comme nag dangeen koo ñàkkal fay waaye di loo ko war ngeen a rusa jël nag yii di ko utiliser lii wow na amul benn guur neexut safut xorom safut suukar yu neex yaa fi ni gadd tarkal la gudd rëy dëgër ñun kokku tol ni ko neex lan yàlla ni la jël ko nag wayal ba mu neex noo ko sentir te mu daggan la teew la loon nekk ca yaa ko moom jëlal sa yëf ma war laa mën a téye nga lew ma domm ma woy ci ba samay bët di jooy ma dëbb ci kuur gi ci gën gi ba mu neex man bokko fi moom nooy neex mais ba bokk fi di jël yi dëgër ke ci di ko utiliser waaye di ngeen nag yéen ngi yàq deru jigéen ñaa yéen ngi yàq deru jigéen ñi ku ci bawut góor du porosé waxuma waxuma parfum yi di nga jëli kuur gu dëgër këcc di ko soq <laughs> foofu la ñuy toll nag dañuy toll foo xam dañuy bëgg ku ñuy téye di ñu dëbb di ñu soq di ñu rukk rukkal ba xolam ba suñuy bët di róonaloo lan yaramu jigéen pour mun naa yi il faut góor ne ci ah koy waxal ah liquide bu ñuy màggale daf ñuy faj bi góor da faj ba boo ko manqué day feeñ ci yow ngeen bëgg a jël góor ni du projet ngeen ko paquet teg fu ngeen ne góor neex ba dee yàlla liggéey ko pour jigéen ku ñu ne la sax ca yow sa morom bi jat ñoo ko fi wax waxu góor ngeen di ko jagala ko waxu góor ngeen di ko da ngaa war waxu waxu rek ngay wax fii ku fi waxul waxu càgga dafa waxu defuñu càgga xoolal di nga defi leneen loo xam ne càggatoo koy raw moom muy gën a garaaw loolu waxi càgga ji ngeen wax loolu koy gën a garaaw ndax lii kat kaa mënu koo romb parfum yu dëgër yi woow yi ma koy dugal samay samay kar man di riite la lan pérési nga ci mën a am te gudd dëgër gudd dëgër rëy neex neefi leew la dox yàlla ñu la yéen a ko moom jël du ma ko jël def ci lu ma sax yéen fu ngeen ne da ngeen di riir wala da ngeen di nelaw xoola bu leen ma yëngalaa ah. <laughs> moo jëmbaay jógal waay kaa bi sa kaala ah maa koy traité kat ndax man maay caga bu mag moom la ma ñëpp bàkkee yaay caga boo ko góor a jigéen ngay wax rek tarkaal la coow am fi man leen góor ñi rek seesee fu jigéen rek seesee fu ñu dem toog te mën naa jëlub saabam wala ab ab likitam ne ca di soq ba ne yaa waaye jigéen war laa jël nii taf la sa dënn bii tooj ñu dee say nopp nga tax ñu màcc say ween nga karam ñu màcc daxaar ba mu neex nga réer ñu jël kuur gi dëpp ko ci gënn gi ba mu neex nga ne neexul ki <laughs> na neexut danga cee bokkut de mais <laughs> bu càgg bi ñëw na maa ngi xoolal ceeb balaa mën a sëy dëgg ñu woo ko càgg bi càgg tur rek la waaye nag kon góor dem na ba toll leen fii wuti leen ci góor ñi dafa seen yaram yi bu leen rëy bu leen te xoolal bu leen ko bëgg ba pare di ko bañ bañ ah ñoo ko moom de suñu ko jëlee ñoo ko moom suñu ko jëlut ñoo ko moom góor pour ñun la <laughs> pour ñun la pour ñun la kon dee leen ci barkeelu du ci xéew dee leen ci xéewlu dee leen xéewlu ci xéewal gi yàlla daa boole couple jëkkër ak jabar am num la jox yow góor tarkalla mu am num la ca binde jël ni jox la pour jigéen ne la ñaar yi ñooy ànd këppante nga mën a yëg plaisir am ci doom mu dagan la doom ja tarkalla sosu ca junjiti farataak sunna suñu borom kontaan ci yow loolu la wax ay parfois koy luy ni koy utiliser ba ba ba ba ba mu ba mu yegg sa sa sa poésin ba poésin ba lay jël lu ko xolli nga jommi nooy neex nag guddu rëy dëgër <laughs> guddu rëy dëgër tarkaa la ponkal ma soxla ko man mu neex ma bëgg ko moom ko mu leew ma nga ne ko fi ñukk di jël lu dëgër këcc di ko ci riitale ndax lan yéen xaw ma des fois da ngeen di soxore góor ñaa ah yéen di soxor la nag góor na fi ñu ne la moo ngi nii dafa loolu asaf ngeen di du ma ko ci def dem jël lu dëgër këcc di ko dugal di ko ci dugal di riital yéen yéen ni soxoor la nag yéen ni soxoor la nag te ku soxore nag ba soxore sa bopp war ngaa duggaat ci ruq xool sa bopp ah luy seen problème góor ñi pour ñoon la jigéen ñi pour góor li ñu góor ñi pour jigéen ñi la war ngeen rusa yor sax ay parfum di ko utiliser góor du projet gi ngeen def ci seen bopp yi dindi leen ko góor projet la ndax njaboot ga nga am projet la gudd rëy dëgër nooy neex lew la doom nga tiñ ko defaj sa soxla ku fi wax dëgg na ñu naan caga nga wax ju bon ngay def yow loolu waxu tar rek ngay wax mais bu ñu génnee ginnaaw diine ji bu jàllee lan nekk leen lu wax def ni caga dama leen di laaj nee na yeneen bi nee na bu jàllee lan moo fi des si sëy lu dul këppante sëy tëddante am doom loolu moo fi nekk te loolu jaamu yàlla la ak ki la lew sa jëkkër la ngeen bëgg a jël bu góor ñi waaye di loo leen paquet leen tagaleen fële di jël ay parfum ko ay vivre rek loolu ngeen jël ko fu ne ngeen jàpp ko fa di vivre ko yënga tuta lii di neex di nooy tarkal la nga dem ba yegg ca gàll ga munu gàll mu gën a neex gën a nooy ah bu leen ma eh xool bu ma yëngal de pour yéen xam ngeen ma <laughs> Sénégal jaay yéen xam ngeen Mbodia Mbaye Mbodia Mbaye mi do xam ngeen ko bu ngeen ma fi yëngalee ci digg balaa jaar faram fàcc ko nu ko tipp xoolal gën nga xar bu sa yëngoo ma yëngu jéggi na faaj tarkal la jëri parfum ki ay tàngala ay yu kenn xamul di ko dugal seen kanam ndax lan bëgg góor ba pare di ko bañ dee leen gën di dëbb góor gi ci gën gi ba mu saf dofoo leen nekk leen ay nit lii mënul dara ku du rëy dëgër mi ngi fi dee ko jariñoo pour ñun la